Euh, El Malik Ndiaye ndax nee na danoo bëgg a li que ce projet euh, ils sont injoignables kenn mun leen jot exactement euh, te amaan na ni nekkoon lii lañ jaay li que moo sénégalais il a parlé avec le cœur justement mais ku ce nekk ak sa interprétation boo xam aussi ce am na ko si si kàddu Imam Dramé yëkkati envers ces deux ministres alors tout d'abord une parce que l'opposition en a profité pour euh, critiquer le euh, euh, régime bu bees par rapport ak le changement systématique systématique bi nga xam est-ce que mon japp ni Imam Dramé a pu prêter le flanc. waaw certes mais d'une part aussi il a raison d'une part ah d'une part il a raison. Hmm, allez-y ah, si côté waaw d'une part il a raison d'autre part aussi Il na peut-être l'arc pousser

parce que imam quoi que l'on puisse dire waxnako responsable la ci biir parti bi ci projet passé aussi def ci xex xeex bu am solo lolu on n'en disconvient pas lolu mom kenn du ko kenn du ko mm, mm. maintenant nak la japp moy bo boo ba xex ci projet ba yegg fenn fi amna fo xam buñ ñu fa yeggee warutuloo préparer le flanc quel que soit la situation amna lo xamanteni dañ ko wara garder ci biir potum biir la wara doon même mom bu mënul jot mom la wax de dans un bras may dem ci ñeneen mom sax mom bu mënul jot El mali ndjay mais El mali Ndiaye si politique amna ay kilifam man j'en suis sûr et certain que ni el euh, euh, euh, kii nu mu tuddati Imam Dramé mais bu woote Sonko Sonko jël ko japp na ah loolu la japp kat wayam la te ño bokk projet bi ñoo ko xeexandoo. Mm. kon japp na ni même El Hadj Malick Ndiaye lamuy don kilifa amna ay kilifa itam. Mm. man pour man warul warul war amna lo xam kenn du ko weer ci ci ci ci penc en tant que ño mm. xam ñu ngi doora ñew euh véritablement am nouvelle opposition bu taxaw. di xaar ñu prêter le prêter le flanc ñu euh, exercer ko kon japp naa ni il faut être beaucoup plus prudent et stratégique par rapport ak des fois la nga xam lay metti nga koy fësal ci espace public bi nga koy fësal ci euh, parce que loolu mooy li nga wax en en réalité Fallou. Hmm. est-ce que réeroo am aussi. non mais réeroo am na bu amul woon du génn loolu laa la wax. xëy na peut-être nag tànt na pour que saafara mën a am ci loolu mais xëy na peut-être amul résultat. yu mu soxla imam imam imam imam mi ngi différencier. Euh, parti bu nekkoon parti la coordination était quoi sur flûte et d'autres étant d'autres ils sont au pouvoir euh, ils ont des urgences euh, devant leurs responsabilités étant d'autres étant d'autres est-ce que temps bi me permettre. ñuy <laughs> non permettre non non yow da xam ministre bi ñaata message lay jot par jour. xam nga ñaata appel lay jot. mais dama ne nag il y a des appels et des messages à ne pas négliger Fallou aussi. c'est important waaw waaw waaw c'est loolu tamit c'est important aussi. dama bëgg ne du du yëg seen bopp non mën na bañ a nekk yëg seen bopp. liggéey la mu tëncu. ministre yi duñ nelaw surtout ñoom ñii ñu si bëree bëri fii nii laa la wax boo métul duñ nelaw nelaw bu doy parce que li leen xaar xam nañ ko te xam nañ sénégalais yi taxaw di leen xaar. kut ko kut nañ dara ni mën nañ lañ fi fekk dafa metti dañ fekk tabax ci il faut que ñu am une compréhension par rapport ak ñoom responsabilité yu ñu yoroon ci parti bi bokkul ak responsabilité yi aujourd'hui dañu yor euh, dañu incarner des affaires des affaires publiques affaire état la incarner mm. am na xamante ni dañuy comme ministre du transport mm. accident am na bërëm nàmban nga dagg say kii jël li ko mu yóbbu la tu as vu waxuma sax ay ministre mais ñun ñii rek des fois daañ toll foo xamante ni hmm. nit mën nañu envoyé message tey mën nañu toog deux jours wala trois jours di ko door a répondre ñun ñii rek ñun ñii nga xam yoruñu benn responsabilité hmm. masamaa nag ministre boo xamante ni aujourd'hui yaa ngi yor euh, euh, terrestre transport terrestre hmm. aérien ak lan ak ak ñett la de maritime maritime moo oui ah mais mooy transport secteur transport bi moom mooy secteur transport bi léegi nag problème bi foofu la ne ministre du ciel et de la terre xam nga léegi responsabilité yooyu yëpp tam mënu loo ko yor ba pare nga ni ku mu bippee rek ma woo ko wala ku ne ma kuku wala CV ma wuyu ko mënul ne mais nag moom mooy li ma la wax rek mais est-ce que il ne sait pas peut-être mais nag mooy li ma la wax Fallou Fallou Fallou am na message yoo xamante ni kenn du ko négliger aussi Hmm. kenn du ko négligé loolu moom il faut ñu bàyyi ko xel itam. mais est-ce que tamit euh, santu ni da ko xaw a euh, ignorer un peu si nomination yi peut-être Serigne. non Imam Dramé comment hmm. comment ignorer. Hmm. ñoom ñëpp dinañ jot seen seen seen seen. wàll ma ni xol lay waxee que ni da ko xaw a bàyyi quoi maanaam nee na comprendre na sax Sonko ak Diomaye parce que li leen dénk dafa diis mais euh, mais mais. ñu ne ñii itam lañ leen dénk diis na de. woyeful de Fallou maa bëggoon ñu nommer le ministre. beneen affaire la. beneen beneen affaire la. Hmm. buñ la nommé woon ministre. sa yaay ji la sukku jur sax amaana jot ba mu la mu temps ba mu daan la am si yow dootu ko am mën nga toog un mois wala deux mois yoo xam teg bët. Hmm. mais kay mën na éviter tudd xale jigéen ñi. loolu hmm? dina xaw a discréditer exactement. waaw waaw xam nga yooyu moo tax man la am na yoo xam ni c'est pas la peine boo am na fu mu ko mën a jooyee am na fu mu ko mën a kaasee fu mu ko mën a waxee. avant que muy sur la plateforme di di di di di quoi. Hmm. mais l'autorité euh, autorités aussi nañ jël en compte parce que buñ ci am une lecture négative mais nañ une lecture positive dans un premier temps. alors c'est parce que vous avez la du appel négliger <coughs> du SMS également les négliger quoi. alors c'est clair exactement euh, la sortie d'Imam Dramé sur. Euh, les ministres d'Ousmane Sonko, en l'occurrence, euh, Ousseinou Lich, euh, communication pour présidence, été le ministre des Transports euh, euh, euh, di euh, nga xam nekk El Malik Ndiaye daal Bataille, c'est une émission li nga xam le point de l'actu sur 5 TV C'est ñu daal di ñëw aussi leen itam actualité Guy Marius